internaute ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di amaat mbégte ak contentement bu mag Dakar la war tey bu ngeen gisee lii nag li ko waral mooy dañoo jël bés bu mag su le 15 ñu ànd ceeg Mo Guide Events ànd ceeg Pape Souleymane Bacci ànd ceeg as Bécaye Faye ak la Bantamba TV ak suñu mbokk internaute yi fi nekk yëpp ñu leen di woo ci bés boobu ndax bés boobu bés la boo xamante ni journée de la jeunesse jeunesse bi ñoo ko moom comme ni ci woo amateur yi di ci woo supporter mbokk yi tey Boucher la ñu seet Ketchup fekk ko Géej waay Boucher maa ngi leen Allez, beaucoup mon corps. kilifa diine yëpp di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu waa aada yi di nuyu Sénégal di ñaan Sénégal yàlla di nuyu suñu kilifa suñu wasi si Dakar aussi di nuyu suñu yaay suñu pap di nuyu suñu soxna di nuyu suñu waa kër di nuyu suñuy xarit ak suñuy am Thank you. làmb li ci des bare wax nañ ba tey li des motu sa deesam wax nañ wax a wax a wax ba àdduna bi yëpp bàyyi mais jëf rek moo des est-ce que di nga dëggal sama parce que combat de roche bëri parce que alaaji ba ñu bu daan la jëlee bu dee kat laax yëpp nangu na li daf la daan jëlee tey lamb li dox lamb boole waat faram sa diggante xalaat yi nekk diggante boo xamante ni xalaat yi naka la këccëg nar a ñëwee ci rëbb bàyyi baal àdduna loolu aussi yaa dem dem di kàr force nga dem la des kàr force Dakar loolu dafa laaj waaye li ma seetloo loolu bees la combat bu njëkk ba da nga wax bu nekk Alaaji Mbaye ba buntu président da nga wax bu nekk parce que yow Alaaji Mbaye am nga avec foofu la ñu waxee te Alaaji Mbaye nee na ak ñi koy maanaam Serap ku ko indi nag yeneen champion yoo xamante ni bis boobu li Alaaji may mooy boo gisee champion yi ci ginnaaw loolu du la déstabiliser. waaw man am naa champion bu ñu jàpp Alaaji may maa ko ñu nekk champion yi nekk champion yoo xamante ni champion bokkul loolu mënuma déstabiliser benn yaa ngi naan làmb man daal xanaa wàññee rek xanaa fële nga jël lépp combat combat bii sama bopp combat ci moom ñu ñëwee ci buntu bi maa ngi doon boobu di ñu bëri nee nañ parce que président Amérique la def ci poste dem Amérique pression boobu doon parce que boobu moom laa la xewoon ci combat boobu yëpp fàtte ci mu nekk nii waaye maa ngi lay wax non dama bëgg nga wax parce que ñun loolu la ñu soxla de ñun waxalu fi indi de wala Lamine waxal ñu bu dee wax indiwul fi ñu ko def dañoo bëgg nga wax ak ñi lay seetaan wax ak alaaji mbay parce que alaaji nee na moom gën a la daan ñaari yoon bëri loo ba def la bëri loo ba nga xoox mu daan la te di nga ñëwaat arène nationale mu daanaat lañ taxawee naan alaaji may moomu bëri loolu. lonkal. <laughs> mais lamb bi foofu la may saf ak la may neex yëpp maa ko def maa bëri maa xattal maa wéyale maa mokk maa songale maa puter bi maa def lu nekk. def rotation di ko tegal 16. muy wër fu mu daanu. doon wër fu mu daanu am am na xeer wala amul xeer. waaw ah, nee na bu jaxabal la lonkal la. da doon xool ndax fi muy daanu am na xeer wala amul xeer pour bañ cee dal. bi muy def di la lantal far tànk bi laal ko dara new ci combat boobu defuñu ma def man maa ngi bëri erreur boobu am waa CNG reconnaître li ñuy reconnaître mooy la kon nag da nga boobu ñaataan sa bopp combat daanu ma CNG bi tax nga reconnaître dawal nga xool nag alaaj may nox alaaj bi fu nekk mu ci deux défaites la toog ak benn benn kii ça fait ça veut dire maanaam moom défaite bi wule la ko daan ñaari ñaari défaite yi mu am moom jëf jël moo ko daan te jëf jël man maa ko defal bagage benn défaite bi Adama Adama Diouf man mën naa ko jàngal te li ñuy wax dañ koy jëf man li ma xam dëgg xam xam laa yem xam nañ làmb ji xam li ma tàmbali ci làmb ak li ma bàyyi ñëpp ci làmb xam nañ ni làmb si koy fay bu amee nii la cay neex maa koy def lañ koy jëli maa koy jël te incha allah rabbi changement dafa am ci diggante ci làmb changement bi nag la nekk ci xeex jàppante li ko gis naa ko. dinaa ko dóor ba mu tëdd ma daal jàpp ma lonkol ma bu tëdd ma bi ma wóoru ma ndox alaaji may dama koy dóor. yaa ama na ko man yàlla laa àndal. xoolal na ànd ak ama ak waa kër yëpp man yàlla laa àndal suuf boobu yàlla ak moom moomu day wax chaque jour ama su ma moom xanaa karaw ñax la ama paara moom ñoo bokk sax. mais ñun tàcc moo ñuy may moo ñuy moom bugul bruit moom moom mi ngi nii buy dem stade du stade bu mu fees del di wër ay tàcc taxaw naan ay gisuma dara caw sa xëy na mu ne ama man la faral nga ne ama man la faral wax jee fi ne rek ama man ak moom dañoo dund ñun nekk Amérique toog fa 2014 15 ñu nekkaat fa 2016 du ma jël waaye man mu jël alaay may. boo ko mën a amal sa xarit sa jaay ma. waaw sama xarit man du ma ko daw. mais nag loo xaritoon moom xaritoon moom alaay may woo ko. nga tuddee loolu yàlla na ko ko wóor na nga ko moom écrit. ama boppam la tal mi ngi am lu lu koŋ ñuy taxaw di ko xaar am na combat boppam ñëpp loo lay bëreel. roi des arènes lay bëree moom boppam la tal ama ah, ay saraxu boppam lay boo amee sarax bu mu jox alaaji mbay da koy def mbay nan li jënti ay saraxu boppam li jënti ñun ñun suñu bopp et toujours ama balde ak alaaji mbay en tant que alaaji toujours kan mais alaaji mbay ama ah, man a ah, yow li ngay woote ni yëpp ci man la fekk baax man wuruma man wutuma wàllu ci tuus wutuma wàllu ci yooyu wutuma ko de yooyu dama koo am dafee ne alaaji mbay lu mu fecc ma feccerte lu mu teg ma laal. Ama daa may indi Ama dafa am combat Ama ngi ci buntu stade bi di ko xaar. Ama mu ñëw ci biir stade bi Arène Nationale Modou Lo ci biir biir teg séeréer bi xam nañu ne ah poulain may bëri bu ñëwee dina fi miine foofu yëpp lay miine di ñëw Ama ñëwal dégg Modou Lo buntu stade bi lay miné foofu dëggaam nga pare. léegi nag dañu bëgg a xam Boucher naka la nar a ñëwee ci bés boobu parce que loolu dugg si Boucher ci biir arène nationale loolu beneen waaw ambiance boobu dañu bëgg nga nga nga ñëw ci loolu. mais loolu open presse bi loolu léegi mu ñëw incha allah sama open presse maa koy def euh, dix bu neexee yàlla maa ngi xool parce que maa ngi xool dama jël stade bi bari stade la Menunggu kesel? Menunggu bari laa ko bëgg a lal teg aspect Oscar. orchestre Bakko. ñoom El Hadj Keita Tarba Mbaye si yëpp ñëw ñoom Baba Mel Thiat Seck ñëpp ñëw. ñëpp laa invité ay Samba Diarra Mbaye parce que jëmloon naa mais Boucher dañoo gis ne nga bëri Alaaji Mbaye ci nga gën a mën a Alaaji Mbaye daal. xam nga tey jii dafa jot ñu waxtaanee làmb ji tey jii mënuñ fee nekk di la wax loo xam nii amul alaaji moom da ngaa bëri moom la nga gën a mën a ci la alaaji mbay daan ndax yaa ngi suuraale sa diggante ak alaaji mbay bu la àggee fa nga ko àggoon bu ngeen bëri yéen ñaar ba la ko soo yéen ñaar bëri ba ruubaloo ndax yaa ngi bàyyi xel loolu waaw dama xam ne làmb ji la neex maa koy def man bu ma bëriwul alaaji mbay du su ma deful action du def action man maay buuru làmb ji suuf léegi moo tax ma jël lépp tegee ne la. non non bii dafa sama kër dafa léegi xeex laa koy indil. ndax boo ko dóoree dina bëgg a te buy fay ma escadre. mais bu ni ma la déggee fi nga teg làmb ji yombul. trop la yomb. non dafa yomb oh, man. dafa yomb ah, non dafa yomb. da ma ñëpp. mais alaaji mbay ma dalal rek mais man maa koy dalal ah, a mel ni ku seetaanu lamb. man mënu maa jël mais lépp mi ngi ko mënti seetaan loxo alaaji mbay la ñu yëkkati. loxo alaaji mbay ku yëkkati. arbitre foofu lañ ko mu toog fii mel ni yaa daan alaaji mbay da ngay wax nit moom moo ko wax nee na maa daanu mel ni ma daan parce que moom fa mu toog di ko sentir xam na loolu nit ñee na ko moo daan moo doon mu toog ne moo mel ni moo daan yaa may dégg dinaa ko indil ambiance bu saf sàpp indil ko bàq bu bees tàq indil ko sañ-sañ bu wóor indil ko xeex bu métti bu soxor mais dama gis ne dafa mel ni yaa ngi yëg dama gis ne dafa mel ni nga songu Ama Baldé yaa ngi yëg firnde ndax Ama Baldé doo am fu Alaaji Mbay toll te boo toogee fii di menacé Alaaji ah Ama Baldé ci la taalibe Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la muy Ama woo muy ci man Sëriñ Tuubaa rek laa yaakaar kaw ma lu dul Xaadimu Rasuul wax naa la ko cent cinquante fois man sëñ Tuubaa laa yaakaar sama lépp moom laa ko nee na Ama moo koy ngemb moo koy jël mystique Ama dina ma yeew dina ma def lépp lépp wax na ma ko keroog bi seen kii bi tëjee biñ tëjee caméra bi dina ma Ama moo ma yeew moo may def lépp Ama daal moom moom lamb moom moomu mystique Ama jëlal lépp yàlla na la ci yàlla dimbali waaye maag Alaaji May sëñ dina ma won yoon bi man man sëñ Tuubaa rek laa question la am monsieur ku ne xam na ni ay ndaanaan nga daan àndal gisatu ma ndaanaan gisatu boobu ba léegi ñuy wax di tudd Ama Baldé ak El Hadj mais gisuma ñu tudd guy gi euh, euh, euh, Ketchup ak Balla Gaye wala Ketchup ak Degueur wala Ketchup ak ak ak problème bi. problème guy gi néew fi du ko fi fekk nekk fi mu ngi état xalaat dafa nekk ci préparation nekk ci combat Balla Gaye nekk ci boppam damaa fenn ñun ñëpp teguma leen dara teggil naa leen lépp man bis ba Maxime Touba Xaadim Rasul ngay ànd ci barki Serigne Bamba doole ji may àndal da nga xam yow lan nga def. yaa wax loolu. billaahi wallaahi taalaay Balla Gaye sama xarit sama doomu ndey teggil naa ko lépp na toog seetaan may ñu ko nax guy gi teggil naa ko lépp Lac de Guiers sama frère teggil naa ko lépp. lépp ma wéeruwuma ci mindee. mais mais ala Serigne Touba wéeruwuma ci. mais alaaji ñëw nag ànd ak ñoom ànd ak ñoom maanaam seetaan sa yow nga ñëw ànd ak ñoom xam nga. mu gaaw tuuti waay vraiment dafa am loo xam taal xam quelque part ànd ak Balla Gaye a Lac gannaaw loolu dafay loo xamante ni bu question ne ay doole bu question ne ay néew doole. mais dafay dafay charme. ci loolu mais ñooñu ñëpp bu ñu taxawee mais nga war a mën a jëli Lac de Guiers mu ñëw. moom laa lay wax Lac de Guiers am amul combat dina ñëw si làmb. mais xam nga bokkul mais loolu gii dafay bëri. waaw loolu ñëw mais man maa la ne ma ci mbindeef. man boo xoolee sama carrière xool ni may xool ni may jëfe xool ni may doxal xam ni musuma wéeru ci nit damay defar nit man damay fabriqué nit ba mu baax ñooy defar nit neex ba nga xamal ma sama soxla te la laay waxee ak ku mu mën a doon naan ki ci mu ngi ànd ak diw mu ngi gërëm diw mu ngi waxal diw lu baax waaye diw yooyu yëpp ñu ngi may dégg ndax mës nañoo toog ma ne leen lii mooy sama soxla mësta am ci at moo tax loolu mooy wéeru man du ma yóbbu du ma yóbbu ci kenn te kenn ku nekk wéeruwaay da nga yomb ba mu Serigne Touba sama wéeruwaay waaye baax géej waay daf boobu man Serigne Touba la kay sama wéeruwaay waaw teg ah loolu jeex na dafa am lu géej waay wax dafa am lu géej waay wax